Assalamualaikum wa rahmatullah bokku jullit yi mbokk taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di am bekté say suné di and ak yeen ci seen seen youtube dari Linguère tay ñu si sét ci kilifa bu am solo li koy wax Serigne Salim Thioune Daru Salam bokku ci njabootu Serigne Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou Mbacké euh, doon ko xamantene kilifa la ci manam njabootu Serigne Cheikh mu Serigne di Serigne Salim Thioune Mom lañ sét ci won tay fas waxtaan ak mbax Serigne Salim ñu ngi nuyu di la ziar. ma ngi lay fay. di la dalal ci chaîne bi. ndeysaan di am di ànd ak yow rek. ndeysaan macha allah euh, sëñ Saliou bëggoon nañoo xam kan mooy Serigne Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou. asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokk bitim réew maa ngi leen di nuyu lu bari lool di santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax si seet si gi ngeen ma seet si mm-hmm. te li ngeen ma laaj. ma am mbégte lool ngir sawar see tontu ndax ku mel ni sëñ Béthio dey ku ma laaj jëmmam ju tedd ja dinaa sawar lool ngir tontu si ndax euh, sëñ Béthio dey day sëñ Béthioom Serigne Saliou jaar-jaaram nag am na lu ñu si yàlla jox ñu xam ko ngir mën see waxtaane sëñ Béthio kat mom day wax deug yalla ndawam gep da ko jox Serigne saliw Serigne saliw day euh, kérok bi nga xamé ni seen euh, ngeel gise gisé njëkk ñëk gise mang ko romb ci tolu bayam muy bay boba kat du mom képp fa nekkoon waaye magam buñ nane gilé coon ñoom ñaara néwon sa tol ba sëriñ Saliou romb ko watiir ba booba sëriñ Saliou nga war a watiir ba Cheikh Béthio gis ni kat kii dugg si watiir biy dem nit ku baax la sëñ Béthio sim xelam ak euh, ñoddi gi ko sëriñ Saliou xëcc xëcc gi ko sëriñ saaliw xëcc sëñ Béthio samp gob ba topp watiir ba di daw mhm. mel na ni daal xelam woowee moo ko may lii mu am tey si Serigne Saliou loolee nag wax dëgg yàlla muy bànneex loolu si ñun ndax keroog bi ko Serigne Saliou gisee mu samp gob ba topp watir ba di daw booba am xelam mayu ko sax ngir mu nuyu Serigne Saliou waaye booba yàlla dimbali na ko mu samp gob ba topp watir ba di daw bi mu ñëwee daa langaa mu sa watir ba Serigne Saliou ne conseil bi neel ndongo loolu mu jàll si nuyoo si conseil bi ne ko ndongali sëñ bi nee na nga jàll si nuyoo si bi mu jàll see nuyoo si moom sëñ Béthio booba kat xamul luy mbàkke ndax ab cuun cuun la sant euh, nekkoon toolu baayam di bay Serigne Saliou xëcc ko bi mu ñëwee Serigne Saliou ne ko ana sant mu ne ko mbàkke cuun la sant mu ne ko kee sa tool ba di bay ana lu mu tudd mu ne ko sama mag la mi ngi tudd gille cuun Serigne saliw ne ko ndax xam nga ke sa kër sa kër bàyyi Isma Diouf mu ne ko a mune mu ne ko tàkk saani suuf de na nga ànd ak sama mag ñee fekk ma fa sëñ Béthio tàkku saani suuf ba mu jotee mu tàggu bayam kuli cuun mu ànd ak serigne gille dem siari ji Serigne saliw sa kër bàyyi Isma Diouf naka mu yegg si booba nag tout tank la jurom ñaari at yakarna ni ci mom la am muñ bi mu ñëwé siaré Serigne saliw waxtu reer jot Serigne saliw bañu sédélé séddalee ya naka ya, sëñ Béthio yegg rek kër Baye Isma Diouf Serigne saliw da joxoñ mag ni ngir ñu may ko yoon wi mu ñëw bi sëñ Béthio ñëwé siaré Serigne saliw ba heure jot sëriñ saaliw ne ko sàllaahu day ñëwal fii maag yow ay bokk ndab loole mu bokk ak sëriñ saaliw ndab loolee kat moo ko jural lii tey ba ñépp naan sëñ becco loolee boobee la ko sëriñ saaliw defar boobee la sëriñ saaliw nam ma def si moom lii mu def si moom ba àdduna daw topp ko ni ñu ko toppee loolee kat mooy seen daje bu njëkk ba mooy daje ba nga xam ne moom la ñu njëkk a daje nii rek kon maanaam comme cheikh bi ba muy tasanteeg Serigne Salim Mbacke doonoon na doon loo xam ne tout tànk la te jëmm ju ndaw la woon kon lu si ëpp daanaka est-ce que du Serigne Salim moo ko tàggat si jeunesse am ak léppam te dama ko doon dégg si biir waxtaan saay su ne mu doon wax bu may dem examen damay dem si moom mu ñaanal ma lu may def ma wax ko ko mu ñaanal ma kon dafa mel ni moom si jeunesse am lu bari daf ko dund ak Serigne Salim. waaw da ko dund ak Serigne Salim ndax nee naa la ba mu amee juróom-ñaari at la gis Serigne Salim sa ca la sëñ bee dugg école kon euh, ak ndawam yëpp da ko dund ak Serigne Saliou sëñ Béthio buy jàng buy defee examen dem Serigne Saliou Serigne Saliou ñaanal ko mu am sëñ Béthio nee na musuma defe examen ñaari yoon nee na saa bu may defee examen rek bu ma demee Serigne Saliou mu ñaanal ma maat mi loolee lu yàgg la ba yàlla dogal euh, mu am bagam bi mu amee bagam yàlla dogal lu mu dugg rek dem Serigne Saliou Serigne Saliou ñaanal ko mu jàll ba yàlla dogal muy jàngale dëkk buñ naan añaak naa nekkoon na jàngalekat nekkoon na jàngalekat dëkk buñ naan añaak sa Casamance fa la sëñ Béthio doon jàngale yàlla dogal muy jaar mu jàngale di jaar ba mu yegg fii mu yegg tey sëriñ saaliw def ko loole ñuy wax ak ceex waaye fekk ni sëñ Béthio lépp lu mu mës a liggéey lépp lu mu mës am jox na ko sëriñ saaliw addiya nga xam ne moom de mës a téye dara moom léppam day sëriñ saaliw bëggee woon na sëriñ saaliwu mbëggeel goo xam ne àdduna bépp fi tegoon seen bët ba am na bis mu am benn kër kër kër goge jàmm gën kess le serigne Saliou le sikir, Béthio amoon ci kër kër goge da yëkëti kër ga yo woo mam bam bi bamu ñëw ne ko kër gi de dama ko fasiyene jox sëriñ Saliou addiya bam Bambi ne ko ana Béthio boko ko serigne bi fan ngay dekkal sa njabot mu ne ko waaw mom dal tollu na fo xamne dal li ma am sëriñ Saliou ba taxna dal kër gi dama koy jox addiya bi nga bi loolu amee sëñ Béthio mu am fa mu def ak njabootam mu jël kër ga ne kër gi day gis naa ni sax daa tuuti si kilifa gu mel ni Serigne saaliw mag koy jox mhm. ba tax na damay dem ki ma taxool kër ma ma ma ma daggaan ko mu jaay ma kër gi ma boole ko kër gi jox ko Serigne saaliw addiya mhm. bi mu ñëwee si kiy jaay borom kër gi ne ko moom day damaa bëggoon nga jaay ma sa kër gi borom kër googee ne ko waaw Cheikh Béthio yow sama njaboot dëkk si kër gii nga ñëw naan ma jaay ma kër gi moom bu ma la ko jaayee fu may dugal sama njaboot mu ne ko ah man daal kër gi dama koo bëgg damaa bëgg a jox Serigne Saliou sama kër a addiya te mu mel ni kër gi daa ndaw ma bëgg a jënd sa kër boole kook moom waaye sëgam Serigne Saliou nee na ma del dogu del dogu sa dogu baax na lool loo dogooti ma fekk si la fi mhm. mu ne dogu naa si barkeb Serigne Saliou yàlla na Serigne Touba def kër euh, kii am xelam ngir muy jaay kër gi waaye dogoom boobee Serigne Saliou kat da ko saa fekk si mu dogu ko yàlla dogal mu dem këram toog ba mu toogee ab diir ay at waaj ñëw ne ana sëñ Béthio ñu ne ko mi ngi si biir de moom da daa fattu biñ ñëwee ba wax ko cheikh bi cheikh bi bimu genné ba dalal wajjo jooj ko ndax fatel fàtteliku nga sama kër gi nga bëgg bi nga xamné dang ko soxla won ngir ma jaay la ko mu ne ko waaw ah, waaw mu ne ko ndax jaay njënd momé dang ko bayyi mu ne ko déedéet bayyi wu ma njënd ma dag ma ko taxaw pour jaay ma ko mu ne ko waaw mu ne ko ana nangam ñaata nga koy jaay mu ne ko nangam señ Bécco ne ko nangam señ Bécco fay ko koppar ya mu jël kër ga ak boole këram jël ko jox ko Serigne Saliou addiya boobee la ko Serigne Saliou ne maa ngi dogu si barkeb Serigne Touba Cheikh Béthio yàlla na nga bëri kër ba fii may waxee ak yow Serigne Saliou kat ko daggal jannatul maxwa waaye nag ba mu ko koy daggal njàpp ndal la ko fekke ne ko moom day plan Touba ngi nii da ngay seet fu la neex ma daggal la ko sëñ Béthio ne ko moo Mbàkke fu may seet Mbàkke ba ma la amee laa am lépp ba tax na man de aw ma fu may seet Serigne Saliou nag hmm, sallaahu de kon de dëggee dëkk ak man sëñ Béthio Serigne Saliou woolu ka doon dagg teere ya sa jooje jamono ne ko damaa bëgg nga ànd ak sëñ Béthio daggal ko ñetti téeméeri pàkk si wet si jannatu mbax waa sa jannatu waa jooja ànd ak sëñ Béthio ndongo loola ànd ak sëñ daggal ko teere ya ko Serigne saali waxoon waaye ba mu koy dagg melne ni dafa amone ab ciow bu fa am ngir ñoñe kat melne ni lim boobee ñu bëggoon mu dagg ko dana xawal metti ci ñom ba nga xamé ni jot na ndigal lolé ba dagg téré ya naka mu dem serigne saliw serigne bi nak mu dem nga ba ñew mu nak wa mbacké mbàkke day bañ koy dagg ciow lu bari ya fa amoon sëriñ wolu woolu waaja ko dagg waa je serigne bi yabalon ngir mu dagg téré ya mu ne ko ñaata téré la la mu ne ko ñetti téeméeri pàkk mu ne ko daggal demal àndaat moom daggal ko junni pàkk yu teg juróom jëmm joojee dem daggal sëñ Béthio teere yam ko daggal loolee sëriñ Saliou ne ko woon maa ngi dogg si barkib sëriñ Touba yàlla na nga bari kër mel na ni kat loolee wàll si ba lii am tey ba sëñ Béthio li mu am si kër yoo xam ne tubarkàl la kenn xamul nu mu toll waaye loolee kat jox nga mu joxoon Serigne Saliou Mbacke kër googee moo ko jural kër yii tey moo tax Serigne tubaar rek a mat a liggéeyal te Serigne Touba rek a mat a jox addi man damay dégg maanaam si biir kàddu saay su ne man sant yàlla mu laa jël def ko muy sama diine lan moo indi loolu dëgg-dëgg xam nga euh, sant yàlla laa def muy sama diine laa jël def ko muy sama diine mhm. waaw sëñ Béthio wax na ko sëñ Béthio euh, moom daa bëggoon Serigne Saliou Mbacke xeetu mbëggeel goo xam ne léppam day ak cant waaw léppam day ak cant moo waral kat wax dëgg yàlla li ko sëriñ Touba sax li ko Serigne Touba sax da xool jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ja ndax maam Cheikh kat Serigne Touba da ko defaloon lu mu defalul kenn. waaye sëñ Béthio mii kat Serigne Saliou da koo defal lu mu defalul kenn. kenn ku nekk nag teg nga sa bët. moo waral nit kat wax dëgg yàlla boo ñëwee yow defal ma teraanga <laughs> faaw ma sant la bu ma la santul ku goree di te yaakaar naa ni suñu borom du nangu sama cant. waaye nag bu ma la santee ah yaakaar naa ne gore moo waral ma sant la ngir li nga ma defal nit koo defal lu baax mu sant la. looloo waral sëñ Béthio diggante sëñ Béthio ak Serigne Saliou ndax sëñ Béthio nee naa la léegi mës a téye dara lépp lu mës a am jëbbal na ko Serigne Saliou. Mhm. moo waral muy guddi di bëccëg saa su ne mu koy sant ndax loolu moo doonoon diineem waaye nag yàlla sunu borom mënoo koo sant di dellu ginnaaw boo ko santee ak yokkute la te saa su ne boo ko santee mu lay dolli. mënoo sant yàlla di rey ndax sëñ Béthio ba muy dalee sant Serigne Saliou kilo ndawal la dalee. sunu borom di ko yokk ba muy rey nag yu toll nii mu toll loolee nag la ko may mooy ak dolliku sant ga may sant Serigne Touba muy lu wér si moom moo ko may moo ko juróon nii tey. moo ko juróon li mu am ni tey. maanaam cant ji tey maanaam tey niveau bu mu mu yegg nii. Euh, Cheikh Béthio lan la si jot liggéey diggante taalibe yi ba nga xamante ne niveau bi yegg na nii. waaw sëñ Béthio lim si liggéey bari na. Mhm. ndax sëñ Béthio daa fonk ab taalibeem. dafa bëgg ab taalibeem sëñ Béthio saa su day bëgg taalibeem am ndam saa su day bëgg taalibeem am sac looloo waral sëñ Béthio saa su mu ni dimbali si kër dinu ko jox te duñu si laaj dërëm dagg tere bu mu am solo jox ko taalibeem ngir bëggu sagam sëñ Béthio looloo waral saa su ne nga mata am soxna mu takkal la soxna te la si laaj dërëm loolee ab sac bëggu sagub taalibee ma tax sëñ Béthio nga am dëj mu teewal la fa yël yëkkati xabul bu mag jox la loolee day bëggub sagub taalibee moo waral mu koy def sëñ Béthio bëggul ab taalibeem di jàmbat dara looloo waral nag sunu borom faye ko lii tey ndax moom de daa bëgg Serigne Saliou mbëggeel goo xam ne lépp lu masaana am jébbal nu ko sëriñ Saliou looloo waral nag Serigne Touba faye ko taalibe yii nga xam ne ñoo raam sukk jébbalu si moom jël lépp seen lépp jébbal sëriñ bi looloo waral saa su ne sëñ Béthio nii nga xam ne moom la ñu dimbalee te muy sagub taalibe si te ñu toppe ko nii ñu ko toppee lam na wan ak mbëggeel gamu wan si moo waral lii am tey moo waral taalibe yi bëgg lool sëñ Béthio fonk ko lool jël seen lépp jox ko ngir lan nam leen téye woon nit boo ko téyee yëg ko bëgg ko mu teeru la téye la ni ñu téyee buur loolu la waral ñun ay taalibeem ñu bëgg ko ni ñu ko bëggee fonke ko ni ñu ko fonke ndax kat dimbali nañu guddi dimbali nañu bëccëg